rajo Afia FM ngeen di teewlu na ci xibaaru suufu takkusaan ya bokk na ci li gën a jàppandi ci bopp xibaar yi police bu commissariat bu Parcelles Assainies daal di def ay jéego yu am solo teg loxo ci ñetti ci ay defkatu ñaawteef ñu doon sonal askan wi ci échangeur bu émergence mi ne ci diggante Patte ak Grand Yoff daal dinañ leen jëbbal procureur ni ki tey jilea fexe bee gën a fulaal suñu meññeefu réew rax si dolli itam di dundee lu ñuy béy ci Sénégal loolee mooy bëgg-bëgg président Macky ñu bëri ci askan wi boobule jamono Babacar Dramé di conseiller technique ci ministère de l' agriculture mu ngi xam leen ni gouvernement bi daal nay teg ay jéego yu am solo ci programme ci wàllu mbéy mi partenaire financier yi ñoo ci war a gën a dugal seen i yoxuwaat loolee buñ ci toftale li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi xibaar yi buur Adjimé Diagne Baldé moo fare ci wàllum xarale ya Mamadou Fall ci kaddu gi mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ni ma la ko doon junjëlee ci bopp waa xibaar yi ñu ànd ak yéen ci wàllum yëkkali ji fas yéene ko doore ak bëgg-bëggu président Macky Sall mi wax ni dafa bëgg rek Sénégal yi daal di gën a fulaal lépp lu jëm ci euh, suñu ay meññeefu réew mi di maanaam ñu dooleel lépp lu jëm itam ci euh, lu ñuy béy ci réew mi ngir ñu man ko euh, dundee askan wi ñu bëri si ñoom ne ànd nañ ci bu baax a baax waaye nag dafay fekk ni kon ci Sénégal itam nguur gi fexe ba lépp lu ñuy soxla ngir man koo dundee mu mat sëkk dañ ci ànd ak reportage Fane Gaye Segnane. njiitu réew mi woo askan wi ci bay li ñuy dundee ginnaaw yokkute dund gi amul app Baye Birane Touré di ab defarkatu téléphone portable ànd lool ci xalaatu njiitu réew mi rax si doole ne li njëkk njaak ñun askan wi la. parce moom mooy président moo gën a xam lan mooy solution bi ci wàllu dund bi moom moo ñu gën a xam parce moom mooy dogal li ma bu ñu neexee ñu wàññi ko waaye loo xam ne da ngay dem bitim réew dem di ko jënd ñoom lu leen luñ ko bëgg a jaayee loolu lañ koy yow boo mën a jënd jënd boo mënul ñu jaay keneen léegi nag solution bi li ma wax loolu la waaw mais ceeb bi ñuy bay Sénégal Sénégal yi duñ ko lekk waaw parce que dañ daan neexul ma bu fekkoon France la jógee ceeb bi ñuy bay bu fekkoon France lañ ko bayee mu mel nii teg teg bu ñëwee France lañ ko bayee ñu jënd li ñu Macky Sall boo gisee discours am bi mu wax ci loolu jafe-jafe yi am si adduna bi la maanaam fi ñu toll nii lépp cher dund bi muy dëkkuwaay loca location bi lépp cher léegi nag xam naa bëgg na euh, attirer attention nit ñi rek moo tax mu wax affaire consommer local mais consommer local moom du ay wax da ay jëf la war a doon moom moo ko war a njëkkee. Baye Birane ñëw dellu di sàkku ci population bi ñu dellu ci tool yi te di lekk li ñuy defaree ci biir réew bi leen jàppale woon nag a bu yàggee dañu dem ba bay ceeb boo xam ne ni comme bi jógee Europe nu mu mel waaye tant que defuñu loolu ceeb dina seer diwlin dina seer dinañuy présenté président mënu ci dara parce que président moomu te dina ci am bénéfice ah man de du dem waaye xam naa ne buñ bëggee mu dem ñun lu gàllankoor yëpp xam nañu ko wóor nañu wóor yàlla na buñ demoon bay Sénégal suqaleku na mais du ñu bay bay lu ñu dundee si jamono ji moo mën a génnee réewum Sénégal nii ñu ngi ci weeru koor gi tey prix Abdoulaye Segnane nguuru Sénégal nag daan nay def ay jéego yu am solo jëmale ko ci ay programme yu mu tëral ci wàllum mbéy mi ngir ñu mën a moom suñu bopp ci wàllu woowee lu des kay moo di ay partenaires financiers ya nga xamante ne war nañoo ñëw ak doole dugal seen i yoxo ngir loole mën a antu su ko defee Sénégal mën a am lu ñu duppee autosuffisance alimentaire kaddu yooyu nag ñoo tukkee ci Babacar Dramé di conseiller technique ci ministère de l'agriculture ñu teewlu ko ci micro Mamadou Keita. Euh, xamee agriculture am na ay problème yu bëri c'est-à-dire suñu xoolee changement climatique yi ak euh, corona bi mais xool nañu aussi soo xoolee adduna bi actualité bi nu muy doxee euh, Russie ak Ukraine ñu ngi ñu ngi jaakaarloo te loolu dina am impact bu bëri si loo xam ne sénégalais war na ko mun a am que ça soit côté engrais bi wala mu nekk côté produit alimentaires yi donc loolu su amee il faut que gouvernement bi mu mën a joxe ay solution cest à ay réponses crois que gouvernement bi def na ay programme yoo xam ne programme politique agricole yoo xam ne pour la souveraineté alimentaire ça veut dire nga mën a dundal sa bopp mais aussi loolu pour nga def ko aussi il faut que partenaires financiers comme ay euh, Anabel ñu ñëw jàpp ci pour que vraiment xale yu nekk ci réew mi mën a liggéey fii tekki fii je crois que amal seen bopp njëriñ et aussi ce que lu gën am solo aussi mooy marché africain bu ñuy ñëw encore muy wax Zeleka Sénégal war nañ ci mën a vraiment jéego ñu mën a xool réellement lan lañ mën a def pour que ñu mun a nekk ci marché yu bees yooyu. police bu commissariat bu Parcelles Assainies ñu daal di teg loxo ci euh, groupe ay nit ñu doon yëngu colum ñawteef doon indil askan wi jafe-jafe ci échangeur bu émergence ñoom ñooñu nag daanaka ci ay guddi la ñuy faral di jël ay briques ak yu ni mel di koy tekk ci kaw taliba ngir daal di arrêté ay woto braqué leen nangu moomeelu askan wi niki démb nag bu ay bu euh, Thierno Diop daal di teg loxo ci échangeur bu émergence ñetti lañu M Bala S Ndiaye ak Bembaye policiers yi nag dañu leen loon ab ndëgg sërëx ginnaaw ba nga xamante ne dañoo rek daal di def seen bu ñaawteef ci kaw benn dawalkatu ko kooke nag moo dem ba ci commissariat ba daal di ko yëgal ay nitu kii du Thierno Diop ci la ñu rek daal di ñëw teg seen ay ndëgg sërëx ba ñu di leen teg loxo ni ki kon tey jii lañ leen daal di jëbal procureur de la République. Afia FM Afia askan wi moo ko tax a jóg. wax ci élection législative yi ñuy dëgmal fanweeri 2022 ñii di waa coalition Yewwi Askan Wi nag bu ñu sukkandikoo ci source a daal nañu tànn seen tête de euh, majoritaire kii di Ousmane Sonko la fas yéene doon daal nañu jël kon boobule dogal ndem sax euh, daanaka fësalaguñu ko euh, naka noonu itam kii di soxna Aïda Mbodj moo fas yéene kon toftalu ci Ousmane Sonko moomule ci liste coalition Yewwi Askan Wi ci jojule jamono itam ci assemblée nationale fas yéene nañu daal di yokku lii di toogu député yi commencé nañu jóge euh, ci euh, téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñi daal di dem ba ci téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar mu doon kon juróom ñaari député yu bees yi nga xamante ne war nañ leen mën a yokk euh, ci limu député yi ci assemblée nationale. yéen a ngi déglu seen rajo Afia FM ci ci wàllum euh, wér-gi-yaram euh, société euh, bi taxaw tam ngir xeex lépp lu jëm ci feebarum VIH ak tamit wàllum paludisme ak tuberculose daat nañu kon jano ak taskatu xibaar yi ngir tëral seen campagne jëmale ko itam ci fexe ba di teg seen i ay ñaxtu ngir woo nguur yi ak tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen ay partenaire ngir ñu daal di dugal seen yoxo bu baax a baax ci boobule liggéey waaye tam ñu fexe bi respecté seen ay engagement dañ ci teewlu Babacar Thiam bokk nag ci ci boobule société ci micro Fatou Ndiaye. di jéem a ñaax population bi wala autorité yi euh, si wàllu doxalin euh, ci programme yi mais aussi politique yi mais rawatina nag ci cadre bi nekk ñuy wax euh, reconstitution des fonds maanaam naka leen ñu fexee ba adduna bi yëpp ñiy joxe seen xaalis joxe ay moyens mais aussi état yi boole seen doole boole seen mën-mën mais surtout boole seen alal pour que fonds mondial mun a am alal bu tàkk boo xamante ne Euh, ñetti ak bu nekk suy financer des programme lu mel ni programme yi xeex sida bi ak euh, palu yi ak tuberculose yi mun a am am les moyens pour que feebar yooyu ñu sori mais surtout également aussi euh, boole joxe ay moyens yu mun a tax comme lu mel ni pa Covid parce que Covid nekk na crise boo xamante ne dafay joxe exemple pour que yeneen crise yi war a ñëw parce que du yem ci Covid bi rek kenn ñaanu ko mais il faut s'attendre aussi à qu'il Euh, d'autres crises maintenant très tôt naka la ñu mën a détecter ces ces ces ces ces ces ces maladies là émergentes il faut aussi ñu renforcer lu ñu wax les laboratoires de recherche laboratoire de recherche mais également aussi euh, la pharmacie tout ce qui est médicaments laboratoire de de de recherche loolu dafay permettre équipement également aussi luy permettre renforcer le système de santé donc loolu moo tax Fonds mondial actuellement ni fi mu ne ni mu ngi def campagne ci juróom pays donc cité na ko Sénégal ci la bokk. Afia feem